dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu abu te leen ngir dara bañ leen raw ñu woyat ak yéen ba tey ci xibaaru internet info 221 at ga ca woon niki démb ca Ousmane Sonko nag bari woon naag ñoo xamante ni dañ leen fa jëlee ku mel ni nag Ndeye Ndack Touré mannequin bi nag jamono ji dafa dugal loxoom ci wàllum politique waaye nag di sa boole jàppale ka nga xamante ne rek mooy Ousmane Sonko moom nag niki démb laa ca sax mbir mi di jeex dañ ko mujjoon dàq sax ci salle ba ci salle d'audience bi moom Ndeye Ndack ture jamono ji nag moom ex parti Pastef lay yëre jotoon nañ ko expliqué ci salle bi ginnaaw ba muy utiliser ay téléphone te dañuy tere téléphone ku ko utiliser ci bu ñuy amal audience yi pour le moment nag plaidoirie yi nag jot nañ ko terminé waaye nag niki suba daal ci jàmm salaam nañu fas yéene joxe euh, délibéré bi nga xamante ni moo mujj mbirum Ousmane Sonko ba tey jii Guy Marius Sagna mi ngi ñaalu tekk tekkaaral bi nga xamante ni waa États-Unis def nañ ko mu doon mbir goo xam ne doy na waat ci mbirum Ousmane Sonko nee na nag ci benn publication bu mu tubee X moom député bile jot na manifester nag si considération bi nga xamante ni ñi di waa États-Unis defuñu benn liggéey ci li nga xamante ni moom la Ousmane Sonko di jànkonteel jamono ji jamono ji ginnaaw ba ñu waxee naka ci opposant russe Alexei Navalny États-Unis naka jotoon nañu am ay quelques heures yoo xamante ni waroon nañ ko mën a libéré ci ñu mu gën a gaawe loolee nag amul ci kaw Ousmane Sonko jotuñ sax prononcé ci bu ñu sukkandikoo ci kiir bi di porte parole bu conseil de sécurité nationale ci assemblée nationale rawatina pencu ndaw réew mi ci poursuite am ci silence pression yi nga xamante ni nguurum Sénégal mi ngi koy teg ci ndodd Ousmane Sonko mu doon loo xamante ne dafa jéggi dayu ci kanamu askanu Sénégal ak ci waa bitim réew moom Guy Marius Sagna yemu ca rek nee na ku mel ni Macron ak France ñoom nag jot nañu désigné Amadou nag seeni Amadou Ba seeni candidat ngir mu falu ci atum 2024 waaye nag nañu xam ne France nañu xam ne Sénégalais ñoom nag kenn mënatul leen diriger di leen noter dinañu taal dinañu tànn ka nga xamante ne moo leen doy waaye wuteloo koo xamante ne ñii di éliser ak dorsal ñoo ko daal di tànn Déthié Fall ci siège am nag jamono ji dañ ko barricadé loolee nag nekk loo xamante ne Alioune Tine di njiital Africa Jëm Sër dal ci kaw président de la République siège bu PRMP bu Déthié Fall nag jotoon nañ ko assiégé waat force de défense de sécurité yi loolu yëpp dem nañ ci nagresi loolee nag doon loo xam ne métti na Alioune di publication bu mu fësal ci page Twitter moom njiital Africa Jëm Center nag mi ngi comparé discours Macky Sall bu soixante-sixième anniversaire bu bu la du l'homme ci décembre bi nga xamante ne ci lañ jagleen woon àdduna wër nga këpp jagleel lu jëm ci ak ak yelleefu askan wi moom nag euh, bile fondateur bile waaye tamit di saytu ci lépp lu jëm ci ak ak ni ñi nguur gi la lam wax ak lu mu jëfee tegu ko benn coon ndax ba tey jii euh, opposition ñu ngi woy di souffrir ay jafe-jafe yoo xamante ne moom moo ko teg seen i ndodd